muy Tawfekh ju rëy kenn xamul fu mu yem. bi sëriñ bi agsee ci la ànd jëwriñu daara ji nemiku mboolem bagage lu ci ne mu xool ko big ci lool lii nag Tawfekh gënu ko rëy ci nun te wax ji sëriñ Tuubaa wax ci xas dëgg Matlabul Fawzayni gi mu bindee ci barab bii ñu siyaaree tey firndeel na ko muy wajlub lahal xayr minal jihaati as sitti wak fiyahanil afaati dafa wax ni yow suñu boroom ñaan naa la nga xëcc wépp yiw ak lépp lu baax ci juróom benn gox yépp jëme ko ci sama dëkk bii di Touba te ñaan naa la nga fegal dëkk bi gàkkub àddina ak àllaaxira yépp wax jii dey nattable wuñ ne lépp luy àddiyee ju dikk ci siyaare bi ci barke wax ji rek la jàppande ak fu fi mën di bàyyi ko. lii ñu am lépp tawfeex sëriñ bi sëriñ bi.